asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yu seen football tv nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen vidéo bi nag dama am mbégte lool def ko ci Keita Baldé nag laay wax Keita Baldé nag dafa defar benn jàkk bu war a tijji le 11 juin fële ci Casamance Vélingara mu nekk dëkk bu xamante ne nag ay parents foofu lañu soxee ko Keita Baldé nag vrai la li nu mel dafa nekk xibaar bu xamante ne dañ ko war a di partager bu ko defee bépp joueur wala bépp sénégalais bu am ay moyen mën ko gis def ko ndax du la wàññi dara Keita Baldé nag lii du lu bees Keita Baldé c'est un vrai patriote gis nañ ko muy jéem a convaincre Ferland Mendy Fodé Ballo-Touré Bouna Sarr li nu mel sax Keita Baldé moo ko wax pour ñu ñëw équipe nationale du Sénégal loolu bu ko neexoon du ci fekk gis nañ ko tamit ci confinement bi. coronavirus bi mu tàngee jër dëkk yëpp jaaxle si jamono boobu Keita Baldé dafa dem di jàppale ay immigrants sénégalais Keita de defar na école moo tax nag bi ñu gisee mu defar jàkk nekk lu rëy mën ñu koon gis bàyyi mu dem donc dañ ko si félicité bu baax a baax baax di ñaan nag yeneen joueurs yi wala beneen sénégalais bu gis li mu rafet lool mu def ko moom nag ay parent bi ñu ci am mbégte lool boo gisee ay parents ñoo dem demoon def visite bi xool jàkka ji et mu nekk mbégte lool ci seen doom bi leen defal lool après ñu gis Sadio Mané dem Bambali li mu fa def ñu ñëpp gis nañu ko ñu gis association bu ñoom Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana gi gis nañ Mbaye Diagne muy corps bi muy avant corps bi waa dëkkam li mu fa def ñoo gis quand même suñu joueurs sénégalais yi ku lim da ngay jub joueurs yi def bëri na lool ñu ñu xam ak ñu ñu xamul donc yaa na leen yàlla gën a taxaw seen man xamante ne suñu joueurs yi ak bépp sénégalais am na ko yéene def ko fii ci réew mi yàlla def ko donc mbokk yi lii moo nekkoon seen xibaar mënu woon gis ko te duma ko wax parce que dama si am mbégte lool gis Keita Baldé def jàkk donc ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jëfal nag bu baax a baax di leen wax ba beneen sur Senfootball TV